asalaamaaleykum mbokki géewul asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi fii tey ci kër Seydi Alioune Boye euh, tey ci émission bi ñuy wax Ramadan solidarité comme ni ñu leen waxee rek fépp foo xam ne rek euh, nitu diine nga fa fépp foo xam ne borom xam-xam nga fa rek danañ fa jaar mu waxtaan ak yéen ci wàllu solidarité euh, tey nag ñu dalal oustaz Mbodj nekk fii ci daara Seydi Alioune Boye te oustaz ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay sëñ bi. Hmm. oustaz tey ñu ñëw ci émission bi ñuy wax Ramadan solidarité muy wàllu ndimbalante wàllu jàppalante ci li nga xam ne mooy weeru koor bi tey bu ñu bëggoon a xam wàllu jàppale wàllu ndimbali ci weeru koor lan la oustaz di wax. alhamdulilah alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi allazi jaala sahra ramadana li sairi suhri sayida wa kammala fi lfaqra xaysu jaalahu lilbarakati walxayrati mawrida وأنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي تالبي بوكي لي شيطان فتبارك الله كنا بون سنتي يالا جلدي سيسانو سانديري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوغ لين دي نوي نيوغ الاسلام نيوغ بيغا خامي فتبارك الله ñun ñëpp ñoo ko bokk te mu composé bu si juróomi baat di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mel ni mbokk mi fa tabarakallahu laaj nga laaj bu am solo si li nga xamee ni mooy euh, social bi nga xamee ni fa tabarakallahu nit ñi daan koy def si jamonoy weeru koor xam nga shariatul islaam maanaam almusaada daf ko bëgg waaye rawatina si weeru koor weeru koor moo tax léeg-léeg nga gis sooy seetaan télévision yi nga gis nit ñi di def ay ndimbal ñii di génn ñii di jënd ay ceeb wala ay suukar wala ay tàndam di ko joxe maanaam loolu dafa am ngëneel boo xam ni fa tabarakallahu yàlla daf ko see dëxëñ dontu sarax yonent bi alayhi salaatu wasalaam maas ibnu jabal ñëw na laaj ko نيكو أي صدقة أفضل يونتي بي تونتو نيكو صدقة في رمضان معاذ دفو نيو يونتي عليه الصلاة والسلام نيكو يومي نغا خميني يولا يالا يوني بان سرخ مو غنت سرخي يونتي بي نيكو سرخي سيوي ركور كون فتبارك الله لم ستف الموي منوكو سرخ دفاي فاي أي بكار كم ني ndox di faye mat manam ndox bu fekke ni nit ki dafa taal su ko bëggee fay day jël ndox daal koy sotti kon ndox mooy fay safara waaye sarax fa tabarakallahu dafay fay ay xatiaat muy zunubu zaxa sawair yi mooy bàkkaar yu ndaw yi ndax sarax moom fa tabarakallahu mën naa effacer lépp mbooleem bakkar ba mu des bokkaale yàlla shirku daal la mënul dara waaye mbooleem bakkar sarax da koy da koy da koy dindee moo tax دف آه، اللي خمين موي إيه؟ أفكاره يعني للمساعدة الفقراء في رمضان برام خم خم دين سيوح لبره ما نام دملي نيغا خم نيو نياك سيوير كور فتبارك الله برام خم خم دين سيوح دين سيوح بره وايتين بوك نسي نغني ليغا خم ني لاق نكو موم سرخ سيوير كور ني فتبارك الله معناه اكتساب الحسنات المضاعفه si nga saraxe si weeru koor du yamak sarax bi nga xamee ne moom ngay saraxe bu dul weeru koor ndax saraxe si weeru koor moo ëpp doole fuuf fa tabarakallahu saraxi fan yoo xam ne nekkul si weeru koor moo tax loolu maanaahu yiw bi nga xamee ne moo si làqu borom xam-xam yi nee na kenn kenn xamul nu mu nu mu toll kon fa tabarakallah saraxe daal si weeru koor pour ko doon gàttal maanaahu laha ajrun wa thawabun azima maanaam fay bu bëree ngi si waaye tuyaaba ju bëree fa tabar la fa tabarakallahu mi ngi si waaw saa ñu gis euh, li ci ëpp nit ñi di ko faral def ci li nga xam ne moom mooy weeru koor wi nii képp koo xam ne rek gis nañu rek da nga génne mu mel ne nit ñi ci weeru koor wi rek lañ koy faral di di di di def wala dañoo jàpp ne euh, ci weeru koor wi rek ci la ngëneel li ëppee ci wàllu sara waaw li ma jàpp foofu mooy mbo nit ñi maanaam euh, nit ñi dañoo xam ni saraxe si weeru koor moo ëpp doole mm-hmm. fuuf saraxe furul fan yi nga xam ne nekkul weeru koor ndax bu fekkoon ne sarax ba nekkul misaal bu nekkul jamonoy koor sarax bi bu doon tuyaaba ji bu doon bu doon fukk la bu dekkee si weeru koor nag dañ koy fule ni def ko ñaar fukk bu doon fanweer la bu nekkul jamono weeru koor bu dee weeru koor la dañ koy def maanaahu ñeen fukk kon fa tabarakallahu loolu moo eh, borom xam-xam yi wax ni nit ki bu mu yamale fan yi nga ni moom la wor ak fan yi nga xamee ni nekkul koor kon xataa ba si jaamu yàlla sax daf si euh, daf siy feeñ. Mm-hmm. waaw rawatina sarax. Mm-hmm. Euh, imaam ki nga xam ne tey moo fàlloo sarax yooyu nga xam ne da koy faral di génne ci weeru koor ak lu weeru koor sax kooku ëllëg payam euh, lan lan lay doon. xam nga sarax comme ni ko boroom xam-xam yi jàngalee ndax fa tabaarakallaahu yàlla am na ay kër yoo xam ne digg na ko aji sarax. Mm-hmm. manam ñi nga xam dañuy farax dañuy faral di saraxé yàlla néna ëlëk dina len euh manahu dina len utal benn kër go xamné sa aljana lay nekk kon ñom xaasatan yàlla daf len jéglél kër go xamné fa la ñuy dëkk waaw loolu moo tax fa tabarakallah sarax am solo aha sax ñu gis la mel na ne am ñoo xam ne bu ko génné jàpp ne xeebeel la moo tax ngay jàpp dimbali nit ki am ñoo xam ne ñu jàpp ne buñ leen di jox xeeba tax ñu leen di jox ndax loolu xeebel la wala wala wala ndimbal loo xam ne rek pour wut yiw ci sunu borom la waaw fa tabarakallahu du xeebeel maanaam ab ndimbal la boo xam ne nit ki dina ko jël uniquement ngir dimbale ko ki nga xamee ni faxir la ndax soo demee si wasaayil yi nga xamee ne mooy istixbaaru ramadan da nga ko fekk ñu ni التذكير بالفقراء والمساكين وبذل الصدقات سو دمي سا تومباي دا فا فك معناه borom xam-xam yi dañuy wax ni nit bu fekkee ne yàlla daf koo dénk ab wërsëg chaque jour nay fàttaliku ñi nga xamee ne ñooy fuqara wi ak miskin yi te loolu lu mu leen lu mu leen di fàttalikoo lenn rek la mooy mu génnee lenn li ko yàlla dénk mu jox ko si ndax bul fàtte ni borom subhanahu wa taala wax na si alquran ni baada ausu billahi min asheytaan rajim walaw basata llahu risqan li ibadihi la baxaw fi l ard gis nga yàlla dafa ni wërsëg su ma ko yaataloon kon mbewtu bi bare waye nak yàlla dafa ni maanaaw nit ñi dama leen xaj ay parti ñi ma jox leen tuuti ñi ma jox leen lu bare ñi ma xañ leen waye nak ku nekk maanaahu yàlla daf koy dafay bàyyi xel ci limu manam ci limu lim ko jox ndax nit ki fa tabarakallah ci ñakam bobu nga xamé ni yàlla xañ na ko ba joxu ko maanaahu ci lay fexe ba ki nga xamé ni mo am alal dontu jaamu yàlla barewul ci mom lay amé tuyaaba kon kon oustaz mu la déggee yàlla bu la dénki alal ah. euh, waxul rek nga téye waaye dafa wax nga séddale nga jàppale ñi nga xam ne yaa leen tane nga jàppale ñi néew doole waaye du alal joo xam ne da la ko jox rek pour nga téye ko loo xam ne loolu sax fa tabaarakallaa comme ni nga waxee noonu la rek xam nga ndimbal moom mm-hmm. yàlla dafa la ko euh, wërsëg moom bu la ko yàlla joxee mm-hmm. pour nga dimbali nit la mm-hmm. waaw ndax fa am na ñoo xam ni ñoo ngi ñoo ngi woor pour ñu am lu nu dogoo sax problème la lu nu dogoo moo la soo demee si maa yutala bu mina saa mi si bi nga xamee ni dafay jàngalee yi ni sàkku si aji woor ji ma ngi say wax wàllu wàllu dimbalante si nga xamee ni mooy xaalis boo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko jàngale si wàllu xatta sax bu fekkee ni nit ki amul lu mu dogoo li war mooy nga jël lu mel ab tàndarma boo may am amal ñetti taadara sa jox ko jàpp ne yiw bu bari la mhm. asuma koo xam ne da ngay jël lu mat ay ay ay loo xam ne fa tabaarakallaahu mën soo ko doon jox mën na see dund une semaine mhm. wala mu dund si cinq jours mhm. kon fa tabaarakallaahu loolu xéewal bu bare bare la mbokk mi sax ñu gis eh, yenn saa yi ñoo xam ne yàlla dénk leen alal yu bari eh, dénk leen loo xam ne war nañ cee mën a jàppale doomu aadama yi te doo gis benn yoon ñu def ñu def ñu def lu mel noonu dañuy téye rek duñu partage duñu dimbali kenn tey ñooñu ëllëg lan lay suñu borom dex ci ñoom Euh, dina leen dinañ ko lay ak seen suñu borom ëllëg ndax euh, alal maanaahu wërsëg bi la yàlla jox yàlla sax ba mu koy jox doomu aadama dafa ni ko maanaam dénkaane la ko tudd la ko tuddee dénkaane nga alal yi ngay fàggu nii moom ko dénkaane la de waaw ndax ala kulli xaal lépp yàlla moo moo koy moo koy jëlaat dafay delluwaat suñu borom subhaanahu wa kon bu la yàlla dénkee ni la dimbaleel ma sama jaam yi nga xamee ni fa laa ñoo ñàkk dimbalu dimbalu woo leen ci bu ëllëgee sa borom ngay am ak problème kon su boobaa nag ëllëg yàlla subhanahu wa taala ngay am ak nga am nga amal problème doo am ki nga xamee ni moo ñàkk te woo ko mhm. ndax ndax oustaz kooku nga xam ne tey dafa yor alal naru ci dimbali kenn ba yàlla def mu génn àdduna tey mu bàyyi fi ay njaboot njaboot kooku jël alal ji commencé ci dimbali nit ñi ndax loolu ëllëg dana ko jariñ ci loolu nga xam ne njaboot nga ko cay def waaw am na boroom xam wax ni mën na koo jariñ Eh, mën na koo jariñ fa tabarakallahu dontu fa tabarakallahu bi muy dund maanaahu eh, dimbalu si li nga xamee ni mooy ay nit ndax xëy na moom foofu la xelam tollu woon waaye am na boroom xam-xam yu wax ni maanaam li gën a wér daal mooy mën na koo jariñ ndax alalam la ndax bu fekkee nag fee wàcc ay ay doom ndax eh, soo demee si li nga xamee ni moom moom la boroom xam-xam jàngale si li nga xamee ni mooy nit ki nga xamee dafa wàcc mhm. li nga xamee ni mooy ay doom mhm. yàlla def ñu nekk fi maanaahu même maanaam euh, solidarité bi nga xam ne papa daan na ko am mhm. même ay euh, muamalaat yeeg alaqaat yeeg muy le relation yeeg yëpp doom yi ñoo koy wéyal bu fekkee ne nag doom yi ne duñ see maanaam euh, maanaam souligner loo xam ni ab yiw la yaakaar naa ne alam jooju fa tabaarakallaahu bu ko bu ko doom yi jëlee dimbali si ay doom eh, ay ay yàlla. Mhm. yaakaar naa ni yiw mën na ko si am. yiw mën na ko ci am waaw oustaz ñu nekk ci eh, li nga xam ne moom mooy eh, fukkeeli fan yu mujj yi nga xam ne moom moo nekk ci weeru kool yi di fukkeeli yoo xam ne yaakaar naa ne fukkeeli fan yi tey fukkeeli yooyu yan kàddu nga ci yëkkati ci wàllu jaamu yàlla gi nga xam ne ñaa ko ciy def. waaw fukkeeli fa tabaarakallaahu ñu tuddee ko asul awaxir mu nekk fukki fukki mu nekk nag fukki fan yu am solo yoo xam ni comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee maanaam yonent bi daan na si farlu farlu boo xam ni bu raw farlu boo xam ni daan na bu waraw maanaam ñaar fukki fan yu jiitu yi moo tax borom xam-xam wax ni wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fi asri awaxiri ma la yajtahidu fi gayriha gis nga ñaar fukki fan yu jiitu yi si koor yonent bi alayhi salaatu wasalaam nam nam ko daan taxawee donte daan na ko taxawee taxawaay boo xam ne bu mucc ayib la waaye fukki fan yu mujj yi si lay koy gën a feddali si la koy gën a feddali loolu nag fa tabaarakallaahu ñaax la ndax lu tax yonent bi ñaax loolu pour nit ñi def ko mooy benn mbir rek moo si nekk muy laylatul xadri muy laylatul xadri moo tax ñu wax ni wa ala saimi an yattahida fi l ibadat si nga képp kuy woor warna war na lu si fukki fan yu mujj yi farlu boo xam ne dafay wuuteeg ñaar fukki fan yu jiitu yi ndax dañuy wax ne li annaha qatimu shahr maani maanaahu mooy mooy li nga xam ne mooy complété weer yi li annaha qatimatu shahr wa fiha laylatul qadri kon bu fekkee ne moom mooy complété weer yi fukki fan yooyu moom mooy complété weer yi te am na bis boo xam ne mi ngi si biir daal si laxasu te muy laylatul qadri te bis boobu moo gën junni weer waaw bis boobu moo gën junni weer yoo xam ne nit ki def see sax di si jàmm yàlla mhm. te junni weer yi fa tabaarakallaahu ko misaalee mhm. mooy juróom fukki at ak ñett mhm. yu teg fa tabaarakallaahu euh, ñeeni ñi euh, ñeen fukki fan euh, ñeen fukki weer ak ñett yu teg fanweeri fan ak ak ñett yu teg ñaar fanweeri fanweeri waxtu ak ñett boo ko doon misaal daal junni weer mooy tolloo loolu kon kon oustaz ñu gis ne eh, fukki fan yu nekk lépp loolu def ci ñaar fukki fan yi jàll rek da nga ko war a ful da ko war a yokk mm-hmm. taxawaay bi dafa war a gën a mën a taxaw mm-hmm. ah, tey ñu gis leelu xaadir bi nga wax eh, yenn saa yi di ko jeex ci ñaar fan ak benn ñi ne ñaar fukki fan ak ñett tey eh, naka lañ kon fas yéene xalaate jeex ko ci li nga xam ne moom mooy bis yi waaw fa tabaarakallaahu balaa ñuy ñëw foofu mooy lu tax dafay dafay jaadu mbokk yi nga xamee ni ñooy ñooy déglu wala ñuy seetaan mm-hmm. xam lu tax lan mo tax yàlla subhanahu wa taala jël ben fan jagleel ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudé ko laylatul qadr ba pare nag mu mu gën junni wër yo xamni nit ki dessi don jamu yàlla xam nga dañuy wax ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa am ben bis muy doxantu bi muy doxantu mu romb ben góor go xamni man na ni maanaahu nitu yàlla la ma nga yor ben ngànnaay daal koy lonk sa dox ga di dox di dem yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko daal di koy laaj ni ko yow fan nga jóge ak ngànnaay yi nga nga lonk sa los bi loo koy doyee mu ni ko man de fii rek laa jóge soro ma waaye ngànnaay bi daal li ma la si mën a xamal mooy def naa si jihaad maanaa junni weer jihaad naa si junni weer mhm. waaw junni weer mhm. léegi nag yonent bi alayhi automatiquement mu xalat junni wer ci walu jihad tuyaaba ja nu muy toll. te benn jihad bu la ko yàlla fay rek aljana nga jëm. waaw benn jihaad. yonent bi daal mébét maanaam junni weer tuyaaba yooyu nga xam ne la laaxsu mu mu yiw yooyu mu mébétal ko li nga xam ne ni mooy xeetam. si saa si bi gi rabbi jaatu ummati aksarul umam amalan yow yow sama borom defal nga ma sama ñu yi nga ni. maanaam ñu gàtt fan lañu xam nga xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga ni xeet yëpp ñoo si gën a gàtt fan ndax yeneen xeet yi daan nañ dund ay juróom benn téeméeri at ay ñeenti téeméeri at ay ñetti téeméeri at waaye moom xeetam ku si dund téeméeri at ak juróom fukk bare na waaw bare na léegi nag téeméeri at téeméeri at fukk téeméeri at ak ñaar a ngay dégg kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam na nag ni yow sama borom dafa nga ma xeet boo xam ne seen fan dafa gàtt. waaye nag lam sa teg mooy waa aqalluha amaalan ni que sama seen seen jëf ba pare dafa néew. waaw léegi nag si si si si saa si noonu rek fa aataahu allah taala laylatul qadr léegi yàlla na ne ko léegi dinaa la jox. nga mébét nga loolu dina la jox guddi goo xam ne moo gën junni weer. moo gën junni weer léegi nag guddi googu fa tabaarakallaahu. yonent yonent bi alayhi salaatu wa di wax ni. saxaaba yi ni leen wa asa an yakuna xayran lakum fa faltamisoo fi asra awaxir maanaam. yàlla jox na ma guddi goo xam ne moo gën junni weer waaye nee na mi ngi koy def si fukki fan yu mujj si koor léegi fukki fan yu mujj yooyu nag ñu tuddee ko li nga xamee ne mooy fan yu tool yi si fan yu tool yi la ne moo tax fa tabarakallahu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni man amila fiha salihan kaana lahu min ajr xayru min sawabi alfi shahrin min al jihad yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni képp koo xam ne guddig laylatul xadar boobu ñëw na nga taxawe ko jaamu si yàlla nee na yiw yooyu mën naa tolloog junni weer yi nga xamee ni góor googu jeexal nag yool ba nu muy toll benn guddi googu loolu lay weccoo léegi nag ñu wax ni euh, laylatul xadar mi ngi nekk si ñii ni mi ngi nekk si fan yu tóol yi mhm. ndax soo ne ihda wa isrin mooy ñaar fukki fan ak benn mhm. xam nga benn dafa tóol si ñaar mhm. tuddee si fan yu yi beneen bi am na ñu wax ni mi ngi nekk si ñaar guddi ñaar fukki fan ak ñett xam nga ñett dafa tool si ñaari tof toftalo si ñaar fukki yi ñii ni mi ngi nekk si guddi ñaar fukki fan ak juróom kon juróomee bi dafa too si ñeent yi nga xam ne moo toftalu si ñaar fukk bi mm-hmm. mi ngi nekk si guddi ñaar fan ak juróom-ñaar mm-hmm. kon juróom-ñaareel moo toll si juróom benn yi tegu si ñaar fukki mm-hmm. ñii mi ngi nekk si guddi ñaar fukki fan ak ak juróom-ñeent kon nga dégg ni juróom juróomi juróomi waxtu xaw na waaye li gën a ëpp si wax yi wa wa aksarul aqwal annaha leylatun yaani saba wa isrina ñii ni mi ngi si guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar loolu borom xam-xam ndax lu tax borom xam-xam yi wax loolu ñu ni fa tabaarakallaahu soo demee si suratul xadri muy ina anzalnaahu fii laylatul xadri wa ma adraaka ma laylatul xadri laylatul xadri xayru min alfi shahrin ba ila axiri suura da ngay gis fa tabaarakallaahu nga gis fa ñetti laylatul xadri ñetti laylatul xadri kon ñetti laylatul xadri yooyu boo ko jëlee nga di chiffré ko fa tabaarakallaahu laylatu day nekk ñeenti xaraf alxadru day nekk juróom laylatul xadri juróom ñeenti xaraf la تي يالا بامت نوك سار بي نيت يون ليله القدر ان انزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله xadri ah. kon mi ngi noonu kon moo tax ñu ni ñu am na borom xam-xam yi wax ni mm-hmm. foofu la xoolee moo tax ñu ni mi ngi si ñaar fukki fan mm-hmm. guddi ñaar fukki fan ak juróom juróom-ñaar mm-hmm. mu mel ne oustaz eh, ñu ngi nekk ci fukkeel yi kii di waajal li nga xam ne moom mooy génne mburum koor gi wala asaka gi tey ñu bëgg a xam eh, asaka mburu kooram nga xam dañ koy génne dañ koy génne bala ñoo julli ji wala avant ñu julli ji lañ koy génne ak naka lañ koy génne waaw fa tabarakallahu loolu am na solo xam nga mburum koor dafa nekk loo xam ni comme ni ko borom xam-xam yi jàngalee ni zakatul fitr fitri waajibun yaani waajib la ñii ne waajib la ñii sunna la waaye li li gën a wér mooy sunna la sunna la ndax faradaha rasul sallallahu alayhi wa fi sannati saani min al xijr yonent bi alayhi salatu wa yàlla mi ngi ko sante bi mu gàddaayee ndax soo xoolee soo demee si arkanu islam léeg-léeg sama waxtaan damay dugg si point yooyu ndax dafay jar nit ñi xam ko si nga arkanu islam soo ko xoolee juróom la wala du juróom mm-hmm. ah juróom mm-hmm. la mm-hmm. mooy shahadati an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah beneen mu iqaami salaati itaay zakati sam sam ramadan xajul bayti kon juróom la léegi soo xoolee seede ne amul benn buur bu nu war a lu yàlla seede ne muhammad yàllaa ko yónni mooy benn iqaami salaati mooy ñaar itaay zakati mooy ñett sam ramadan mooy ñeent xaj mooy juróom léegi soo xoolee zakat foofu koor moo ko njëkk a wàcc mhm. te soo xoolee sa xalis bi ah mhm. zakat moo jiitu saw moom te da ngay wax ne azzakat doo wax saw mhm. kon nga dégg ni koor ak asaka bi ñu wa bi ñoo bokk benn at bi ñu wàccee ci nga yàlla bi mu santee yonente bi alayhi salaatu wasalaam koor mi ngi ko sant si bi mu gàddaayee ndax yonente bi lu muy nekk màkk yépp koor amul bu mu demee jógee ma màkk gàddaay dem Madinatul Munawwar sa njëlbeenu at ma mm-hmm. koor amul mm-hmm. sa ñaareelu at ma nag si la koor wàcc la koor door a wàcc waaw mm-hmm. bi koor wàccee nag mi ngi wàcc si saabaan si si ñaar fukki ak juróom-ñeent léegi yàlla sant ko yonent bi bi ñu kooree nag ba am ñaar fukki ak juróom si la yàlla sant li nga xam ne mooy zakatul fitr yi waaw ni ko nag lii nag mooy asakay muurum koor képp koo xam ne génneewu ko nag kooram mën nu ko bañ a nangu moo am na xadis yu wax am na xadis bu nekk la sax ni képp koo xam ne génnewul murum koor sa sa sa sa koor gi day nekk diggante asamaan boo ko joxee mu doogu yéeg am na ñu ko daayifal nag am na ñu wax ne xadis boobu wérul waaye ala kulli xaal ala kulli xaal zakatu fitri moom dafa nekk loo xam ne sunna la dafa nekk lu lu war kon fa tabarakallahu nag am na nag lu ñu tuddee miqdaar am na kem nu muy toll am na waxtu wuñ koy génnee am na kañ lay war ñu joxe ko ak ñi mu war. waaye ni nga ma laaj rek fa tabaarakallaa si laa lay tontu. gan gan waxtu ban waxtu lañ ko war a génnee. waaw waxtu wi ñu ko génnee fa tabaarakallaahu mooy waxtu wi nga xamee ni bi gën fa tabaarakallaahu mooy yawmul ayid. dontu am na ñu wax ni. sopp nañu nga génnee ko yaani baadal fajri yaani baadal fajri ayid wa qabla salaati wa yasihu taqdimu alal alal ayid bi yawmin aw yawmayni. am na ñu ne mën nga koo jiital. avant bi su korite comme avant bis bi waaw mhm. avant bisu korité mhm. comme masalan bul laylatul xadri sa ëllëg sa mhm. yaa ngi dégg maanaam bu korité gi defee ñaari fan am na ñu wax ne man nga ko génnee bu defee benn fan am na ñu ne mën mën nga ko génnee waaye bi gën mooy nga bàyyi ba bi su korité avant ngay julli ji nga génne ko waaw boobu moo gën waaw Euh, ndax ndax ndax boo demee julli ji ba ñëw génne ko ndax dana nekkati euh, mburum koor wala lan lay doon foofu. kooku dañuy wax ni dootul nekkati zakatul fitri mhm. euh, maanaam sarax lay nekk rek. Mhm. comme sa sarax boo xam ne aadatan comme ni ngay jekke bi si yàgg rek génne sa sa ceeb wala sa xaalis saraxe ko nii rek. bu mhm. nekkul weeru koor. yool boobu nga si am bu fekkee dangaa ngaa julli ba pare. joxe ko te amoo benn ngànt. waaw ndax léeg-léeg nag ngànt mën na laa teqatal. fa tabarakallahu mm-hmm. ba nga yéex ko génnee mm-hmm. waaye ala kulli bu fekkee ni yaa ngi moom amoo benn ngant mm-hmm. li gën mooy nga génnee ko afaa nga julli boo ko génnee boo ko boo nga julli su boobaa nag am nga mburum koor boo ko génnee nag après julli gi nag boobaa amatoo mburum koor sarax nga nii rek sarax nga buñ ko kan lañ ko war jox kooku ñun ko war jox fa tabarakallahu juróom-ñetti nit la waaw ki si gën a yay muy ak fuqara waaw ndax bu ne miskin moom la borom xam-xam moom lañ jiital mooy koo xam ne fa tabarakallahu euh, moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a tar ñàkkin fuqara ndax boo koy misaal dafay wax ne miskin mooy ki nga xamee ni amul maanaam amul amul amul lu mu dundee am maanaam amul ceeb mm-hmm. bu mu dunde boo ko doon xool tey amul benn ceeb bu mu bu mu bu mu dundee waaye bu dee fuqaraa mooy ki nga xam ne am na ceeb. Mm-hmm. waaye awul amul amul dawlin bu togg ceeb ba. Uh-huh. kon sooy misaal fuqaraa ak mis ak miskin. Mm-hmm. seen dif seen différence noonu la. Uh-huh. kon ki gën a ki ki ñu koy war a jox mooy ki nga xam ne moom. Mm-hmm. moo gën a moom lañ yaakaar ni kii daal moo gën a ñàkk. suñu soog a misaal suñu jamono tey comme si anasir bi jamonoy tey. man nga ni daal ki gën a ñàkk ndax mm. soo xoolee si yow mi nga xam xamee ni yaa yàgg nekk nit ñi mm. daa xam ne diw mi moo gën a ñàkk diw mi diw mi moo moo tane diw kon ku gën a ñàkk nga ko jox ka ka tane ka ka tane uh, jërëjëf kàddu yu am na solo ñu ngi may uh, signal ñu ngi ci jeexantal émission bi yan kàddu ngay dolli ci li nga xam ne jot nañ ko fay waxtaan waa xanaa di santaat yàlla rek di santaat yàlla mm-hmm. uh, di wax ne nag fa tabarakallahu comme da ngeen maa xaw a bett mm-hmm. waaye bu ngeen ma bettul woon. yaakaar naa ni waxtaan bi dina gën a yaatu. dina gën a yaatu te dina gën a développé. ndax xam naa ne dañoo tënk nii rek fa tabaarakallaahu. li ni ñaax mbokk yi rek fa tabaarakallaahu. ñu gën a góorgóorlu si jaamu yàlla. waaw gën a góorgóorlu si jaamu yàlla fa tabaarakallah ndax li may faral di waxtaan mooy nit bu ko yàlla bindee dafay xam ne yàlla bind ko lu mu jaamu ko. bu la yàlla bind nag da ngay xam ne yàlla daf la bind lu dul nga jaam ko ndax wa maa xaalatu jinna wal insa illa liya'budun yàlla wax mm-hmm. waaw bind ma nit ak ak jinne lu dul nu jaamu ma mm-hmm. kon na nañu jéem a góorlu mm-hmm. di gën a góor góorgóorlu di yokk suñu jaamu yàlla di ñaan borom subhaanahu wa taala mu nangu lu suñu kootu nangu leen kon fa tabarakallahu di la delloo kàddu gi rek. Mm-hmm. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, jërëjëf oustaz euh, kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko fi euh, comme nañ leen waxee woon rek fépp foo xam ne rek moom xam-xama nga fa dana ko fekk waxtaan ak ñun ci xam ne mooy ramadan solidarité ngeen dégg oustaz booy li li nga xam ne wax na ko fi muy wax ju am solo li nga xam ne tey wax na ko fi muy waxu l'islam muy xam-xam moom la fi génne tey ngeen nekkoon fii ci li nga xam ne mooy daara Seyd Aliou Boye moom fii la nekk nekk fi oustaz ñi koy jaajëful baax di ko remercier bu baax ci taxawaay bi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci dara ji di jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel Géewul Art TV di jaajëfal Alioune Badara Wade moom mi nga xam ne moo nekk ci technique bi di leen jox image yi ba mu yemb lool di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñooñu gunge ci li nga xam ne mooy émission bi di Assane Seck maire Bandañ di ko jaajëfal lu baax di jaajëfal ki nga xam ne Euh, ñoom ñoo nekk ci diaspora bi leen jaajëf lu baax liggéey bu am solo bi nga xam ne mooy ay doomu géewul yoo xam ne ngi nekk fii ci euh, diaspora bi di def liggéey am solo di leen jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ak géewul ar ci euh, ci li nga ramadan solidarité bi nga xam ñu ngi koy def ci weeru koor wi ñu nekk ñi ngi woon fii ci daara seydi aline boy ñi ngi leen di baaxal jëfal di leen jox di daje benn yoon incha jërë ngeen jëf